mbooloo mi maa ngi leen di nuyu mbooleem ñu nekk ci jataay bi maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi xalifatu Cheikh Ibrahim borom Darou Mouhty mu di sëriñ Bachiru Anta mu sant ma ne ma barki démb la ma ko waxoon gannaaw bi nga xamee ne mbooloo mi it waxoon nañ ma ko ci kàddu sëriñ Abdoul Ahad moomam mu ne ma na nga ak sëriñ Abdou Samad ngeen teew fa mu mel ne kon muy man muy sëriñ Mahmoudan moomam ak ñeneen ñi ci njabootam ñëpp dafa mel ne dañuy gunge si sëriñ Abdou Samad loolu moo tax ne bu dul woon loolu kon jàpp naa ne dañuy yem rek ci li sëriñ Abdou Samad wax ñu ñëw ci turam ak ndigalam ngir gunge sëriñ Abdou Samad ci liggéey bi nga xam ne moom la ànd ak njaboot ak daaru moo ti gépp di ñaan yàlla sunu boroom jëf ji nga xam ne moom lañ fi tàmbali tey sunu boroom àggale ko ci jàmm ndax ab jaam tàmbali la moom àggale sunu boroom moo ko moom kon moom mi moom àggale yàlla na ko àggale te su ko àggalee itam bâtiment bi li muy tekki te mooy foo xam ne ñiy gane àdduna dañ fay jaare yàlla def ci barke ba nga xam ne ña fay ganee àdduna dañuy bokk ci mbooloom lislaam di dundal lislaam di sax ci njub di wéyal ak njub ña fay génne yal na leen yàlla may barke boobu yal na leen yàlla may xéewal yooyu ndax yonent bi sallallahu waxoon ne sallam dafa waxoon ne tanaakahu tanaasalu fa inni mukathirun bikum yawmal qiyaama al umam dencante leen ndax ngeen am ak njaboot ëllëg ndax bu ëllëgee damay puukarewu ci mbooloo mu bari mi loolu moo tax la rahbaniyata fil islaam ñàkk a mën a yor soxna xamees na ko waaye mën a yor soxna te yoroo ko bokkul ci lislaam kon fii nga xam ne ñooñu dañ leen fi gàttandu sëriñ Abdou Samad nañu ñaan yàlla sunu boroom ñi fi gane àdduna ñëpp yàlla def ci am mucc ci ba ñu fa duggee waaye bañ fa génnee it ñu nekk ci ñoo xam ne dañuy dundal yoonu sëriñ bi di dundal lislaam lii nga xam ne moo nu fi dajale muy takku dafa mel ne takku gi boo ko dee seet tijaaratan lan tabuura tijaaratun tunjiikum dafa mel ne mbir la moo xam ne lépp lu ci waay def lu nekk na la leer ne wa ma tafaalu min xayrin ya'lamullah loo def te yàlla tax ci lu baax na la leer ne fa saasa la ko sunu borom daal di yëg te da la koy delloo wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu mooy ki nga xam ne loo ko defal mu delloo la ko ca lam lay delloo mooy ëpp mooy gën lan ko defaloon kon mbir a ngi nii moo xam ne képp yaakaar borom daaru mooti képp ku dib jullit sax laay wax waxuma la sax koo xam ne da nga aju ci Serigne Touba waaye képp ku di jullit wala kuy doomi réew mi te yor lu loo xam ne bëgg nga ko def ci lu baax. Mhm. war nga ko cee mën a def. ndax it nag bu demoon ba àgg ba noppi am aw desit des woowee day am feneen fu mu jëm ndax euh, am na ñu bari ñu ko fi wax léegi mooy ànd bi motti lente lay doon. takkamul day am ci ko complémentarité day am mag ya day jàpp fii ñii jàpp fii ñàpp lépp marché mu door mu door a baax kon yaakaar naa ne loolu buñ ko xoolee ci liggéeyu Serigne Bassirou Anta Niang bi nga xam ne fi dajale mu jël Serigne Abdou Samad mu nekk njiitul euh, mbootaay gi fi dajale ak lu jëm ci wàllu diine ji ak ci taxawaay yi nga xam ne moom la ko teg ci loxoom mbooleem yi nga xam ne ba ci sëñ Modou Kara la muy fi jóge léegi nga xam ne moom la dënk muy taxaw digganteem ak seex yi te mooy kilifa yu mag yi ci biir kër gi kenn ku ci nekk la nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci sa loxo nu àndantewaat ko boolewaat ko mu nekk benn takk ñu di ko fekkente di ko àndaloo di ko yëkkati yaakaar naa ne loolu ci la ci gën a mën a yi wane liggéeyu sëriñ ak bëgg-bëggu sëriñ bi te yaakaar naa ne loolu mooy sunu jataay bi sëriñ bi xam leen moom nañu ànd ak sëriñ Abdou Samad ci jataay bi ndax euh, moom rek doyoon na ci kon ñëpp xam ne noonu mu séddalee liggéey de kenn ku ci nekk taxawal ma ci wet gi noona lañ koy defee waaye na lañ koy àndaatewaat def ko wenn sayit yaakaar naa ne ci kanam tuuti balaa jant bi so wala lu néew ci kanam di ngeen ci gën a xam leneen lu gën a leer loolu ndax mbooloo mu sëriñ bi tànn ak kilifa yooyu nga xam ne ñoom lay liggéeyloo ñu ngi dajale seen i pexe ak seen doole ak seen man-man mm-hmm. ngir sëriñ bi li muy sumb sumbal ko borom daarul mooti lépp mu am ci ndam te bu amee ndam mooy sunu ndam te ndam loolu mooy ndamul borom daarul mooti ndamul sëriñ Touba. bés bi nga xam tey moo ñu fi dajale mm-hmm. ngir ñu teg pose première pierre u euh, maternité bu bees euh, ci centre santé bi donc comme ni ma ko waxee rek bi ñu fi ñëwee en 2018 dañu def li ñuy wax euh, analise situationnelle analyse boobu won nañu ne centre de santé bi bi ñu ko tabaxee en 92 dafa commencé amortir surtout au niveau de la maternité ce qui fait que soxna yi bu ñuy mucc sutura bi day manqué mais aussi conditions yi techniques yi aussi dafa doon manqué moo tax bi nga xam ni waa association bi ñuy wax ànd defar daaru ñoo nañ fi ba gis ñu staff takku defar daaru ñu ngi jégalu donc association takk defar daaru bi fi ñëwee ba wax ñu aussi seen mëbët pour jàppale ñu ci la ñu leen suñu besoin sàkku si ñoom ñu jàppale ñu pour ñu tabax fi maternité donc tey dañuy kontaan di daje fii pour teg pose première pierre bi di ñaan yàlla suñu borom jàppale ñu kattanal ñu ba fii ci ay fan yu néew ñu taxawaat fii pour def li ñuy wax réception bi. donc lii nag dinañu dimbali ñu xeex lépp loo xam ne ndeeteel euh, ndeeteel jigéen ñi la mais aussi ndeeteel xale yi nga xam ne ñu ngi soog a judd donc loolu nag dafa nekk loo xam ni priorité la ci politique de santé du Sénégal li ñuy wax en tout cas PSE ci son pilier bi ñuy wax euh, en tout cas euh, pilier bi ñuy wax la le capital humain donc loolu aussi mu nekk lu am solo donc dañ ciy sant bu baax aussi le ministère de la santé ndax moom aussi bi mu yegee lii jël na suñu benn ndaw yóbbu ko pour ñu former ko ci lépp loo xam ni puériculture la donc ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di sant en tout cas ànd defar daaru ci euh, daan nañ am juróom fukki soxna yu final mucc ci ci weer bi donc euh, mu nekk loo xam ni lu am solo la te condition yi ak bâtiment yi daanaka matewu ko woon donc gis nañu daal bon ci ñi daan loru bariwul waaye nag jàppale bi ak euh, jël en charge bi daana des ba tax na lu ci bëri dañ leen kan évacuer au niveau du centre de santé de Touba wala à l'hôpital de de Louga donc jàpp nañu daal bâtiment bi maternité bi dinañu tax lépp loo xam ni mortalité la infantile et juvénile néonatal dinañu permettre ñu xeex ko au bénéfice en tout cas de la population de Darou